Sunugal 24 euh, mbokki internet yi ñu ngi leen di euh, nuyu euh, ci seen émission question politique tey nag ñu am mbégte dalal maître Jaraaf Sow moom la ñu fas yéene àndal tey waxtaanu tolluwaayu réew mi maître dama lay bàyyi nga nuyoo ñu soog a dugg ci waxtaan bi ma fàttali que rek yow yaay président parti bi ñuy wax ADA e J donc. ah voilà donc mu nekk parti politique boo xam ne si nii mi ngi euh, fii ci réew mi di amal ay activités euh, donc yow la ñu fas yéene àndal tey ci suñu émission question politique ñu ngi lay dalal bu baax a baax di la bàyyi nga nuyoo ñu soog a jàll ci waxtaan bi. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen yi nga xam ne yéen a géré Sunugal 24 xam ne alalu askan wi la di leen sant di leen gërëm ci invitation bi maa ngi nuyu également internautes yëpp di nuyu également. l'ensemble des militantes et militants ainsi que les sympathisants de l'Alliance démocratique pour une Afrique émergente yow la ñu koy wax ADADI di nuyu monsieur le président de la République euh, monsieur le secrétaire général Mahammed Boun Abdallah Dionne di nuyu l'ensemble du gouvernement di nuyu également sama mbokk Benno Bokk Yaakaar yëpp ñu ngi lay euh, fay di rafetlu teewaay bi bu baax a baax euh, fi ñuy tàmbalee rek mooy question bi nga xamante ni euh, moo lëmbee jamono ji réew mi muy la hausse du prix de l'électricité mu nekk loo xam ne si nii jur na caw chaque jour nit ñi ñu ngi ciy wax rajo yi ñu ngi ciy wax ñu ngi def sax ay manifestation chaque vendredi ñoo lànk di ko def donc mu nekk loo xam ne si ni soxal na askan bi jàpp nga ni courant bi lu ñu war a yokk la wala war na mën a demee neneen. xam ngam réew dafa laaj ci moment bu mu tollool ay spéculation réew day toll foo xam ne yokk day am mais day toll également foo xam ne wàññi day am ça se passe comme ça dans tous les pays du monde et xam ngeen ni Sénégal gii ñu ne du fi lu bees yokk am na fi ba tàyyi wàññi am na fi ba tàyyi ndax xam ngeen ne 2011 bii rek yàggul avant président Macky Sall di ñëw saaku ceeb dem na bay jar vingt neuf mille francs et cetera et cetera te it nañu bokk nangu ñun ñëpp ne bi président Macky Sall faloo ba léegi dégguñu fi benn woos loolu loo bañ bañ bañ président de la république na nga ko nangu c'est un beneen bi it mooy bi président falo 2012 ba suñ joon yàlla tey ñu nekk nii muy 2020 maanaam ay bees dafa am ci lépp lépp lépp surtout ci denrée yi président wàññi naa wàññee wàññee wàññi te góor góorgóorlu na ba inflation amul si lenn loolu kenn du ko weddi ak loo ko bañ bañ de delà de ça ñu war a bokk nangu ñun ñëpp ne président de la république mu ngi nekk ci benn politique sociale bu nga xamante ni bëgg na néew ji doole ñëpp ak ñi nga xam ne seen loxo jotewul seen ginnaaw ñu yëg maanaam ci bànneex bi nga xamante ni ñi nga xam ne seen loxo jot na seen ginnaaw ñu ngi koy yëg moo tax mu indi baisse des loyers moo tax mu indi bourse de sécurité familiale moo tax mu indi couverture maladie universelle moo tax mu indi yeneen politique yu mel ni PUMA ak nangam nangam PUDC fexe ba ku amuloon tëli am tëli piste yi ñu song dëkk yi fexe ba 43 pour cent presque fexe ba am électricité ñoom ñëpp alors que boo jëlee indépendance bi maanaam année indépendance ba 2012 daanaka c'était le le le tiers pratiquement. moom lañ jotoon électrifié président yamul ci loolu indi ay politique sociale lu mel ni tey jii cent mille logements yi nga xam ne ku néew doole am nga droit am ci kër yooyu à la seule condition que sa am-am maanaam sa salaire du toll cinq cent mille wala mu ëpp ko kon ñooñu néew ji doole ñi moo tax président kon kooku am na yërmande waaye nag dañuy wax ne bu ñu tolloo foo xam ne mesure bu mënta ñàkk war nañ koo mën a jël ci intere sénégalais yi fokk ñu jël ko. Euh, su ma la déggee kon yokk bi intere Sénégal la euh, parce que euh, bu ñu gisee yokk bi du pétrole moo yokk moo tax courant yokk mais dafa am lu ñuy bëgg a combler au niveau de la Sénélec moo tax ñu yokku moo tax ñu yokku courant bi est-ce que loolu yoon la tey président jël loolu bu ko teg ci ndodd ñi nga xam ne si moom mooy population bi. président dafay liggéey. sénégalais yi ñoo ko fal ñaar mënuñoo jiite ñett mënuñoo jiite borom xam-xam yi dañu ne woon ñaar yàlla boo amoon bis bu ne nga dégg xeex ci kaw asamaan comme dañ koo wóolu ba fal ko nag ñi nga xam ne dañoo ñàkk nañ ko bàyyi mu liggéey ñun sénégalais yi. ci politique ci ci euh, falaa jëm parce que sénégalais yi waxuñu sénégalais yi fay nañ seen courant ñoom dañoo échec falaa jëm danaa dinaa dinaa jëm ci ñoom ñoo lànk ñooñu dañoo échec. danaa fa jëm mais dama ne li ko waral c'est simple mooy boo nekkee ci réew moo xam ne danoo soxla courant ndax gis nañ li nit ñi dajoon en 2011 lors de l'émeute émeute électricité boobu bu metti boobu nga xam ne amoon na fi ba trésor bi nit ñi ñëw daj ko yóbbu xaalis ba ñu taal institution yu bari loolu duñ président du sa ganaat bu loolu du fi am parce que loolu alalu askan wi la mais est que est-ce euh, lii mu def yokk courant bi te tegu ko fenn est-ce que du tamit du inciter à ce que nit ñi génn ci mbedd mi euh, euh, yooyu mën na fi mën na mën na juraat li nga xamante ni tudd nga ko léegi muy émeute yi. bul wax ne tegu ko fenn fi ko président teg. fi mu ko teg ci boppam moo moo moo c'est pas convaincant parce que tamit dafa am lu mu bëgg a gàpp bu mu bëgg a combler au niveau de la Sénélec rek mu bëgg jël xaalis boobu jëlee ko ci askan bi ci loo xam ne si nii daanaka mënuñu ko justifier donc est-ce que tamit loolu mënu indi problème ba nit ñi wàcc ci mbedd mi tamit indi fi émeute no non euh, je suis désolé ni ngeen ko waxee demewul noonu nekkul gàpp bu ñuy combler demewul noonu ok merci beaucoup ni mu demee mooy dañoo tolloon ci jamono joo xam ne fii àdduna bi toll tey tollul woon foofu xam ngeen ni concurrence économique bi am ci diggante Chine ak États-Unis ñëpp yëg nañ ko kenn du ko weddi Sénégal di defar courant wam ci ay produits yoo xam ne yëpp c'est des produits importés nee na nee naa la lenn rek moo bokkul ci li nga xam ne dañ koy importer ci li defar courant bi mooy ñàkku liggéeykat yi seen ñàkk bu dul loolu li fiy dem lépp dañ koy importer y compris hydrocarbures ñu toll foo xam ne dollar bi dafa jóge entre deux mille dix-huit ak mille vingt bii ñu nekk dafa jóge daanaka 46 dollars ba àgg ci quatre 80 actuellement nii baril de pétrole bi dafa jóge ci 46 dollars pratiquement ba quatre 80 baril de pétrole bi laa wax benn donc hausse baril bi c'est constaté kenn mënu koo weddi beneen bi mooy hausse du dollar dollar bi dañu ni fi mu gën a wàccee ci suuf ba fi mu gën a kawee am na écart bu dix pratiquement écart de dix pour cent mu nekk loo xam ne tey jii maanaam kenn mënu koo weddi ñaari fee yooyu boo ko combiné te alal bi dañ koy jënde ci dollar wane na ni kon Sénégal bi nga xam da doon subventionné parce que en fait dañ doon subventionné maanaam sénégalais lu ñu doon fal ci ñu fay ci njëgum courant. maanaam waroon na noo fay lu ko ëpp. mais mais mais maître maître est-ce que est-ce que donc warul woon am benn communication avant ñuy yokk boo xam ne si ni état bi war doon na ko teg ba nga xam ne si dina préparer euh, population bi bu euh, yokk bi accès ñoom ñu xam naka la demee mais xëy suba rek euh, gis facture yi yéeg ñoom comprendre ñu aussi day day xaw a doy waar. mais c'est exactement man personnellement loolu laa dëkk di déplorer gouvernement bi dafa am problème de communication. et c'est pas c'est que absence de communication bi am ci Benno Bokk Yaakaar loolu moo répercuté ci gouvernement bi communication amul. te lan war a indi loolu maanaam manque de communication boobu au niveau du gouvernement euh, tey euh, lan moo ko lan moo ko justifié. ah man de ci sama xalaat ci sama xalaat bopp.